السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ما جن ميلو مي أما قد لا ليه أنا ياي ميم نايبا ريبا نيف أما جن مي رينف أنا فيس رينف أنا فيس ألاي ألاي تلوني سنتي الحمد لله ها سنتي الحمد لله ah xamal naa la benn affaire namoon nañ la de lay maa leen raw yàlla xam na ko juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum <laughs> ah waaw sama doom ji moom it nag waxoon naa ko na ñëw nag yooyu nag ñun ñett ñuy tës ah? waaye boo demee ma nga ca sëy ba de alaaj sa doom ji toj na fi ma nga ci sëy ba laa ilaaha illallaah kii moom hmm. douze ans la Lamine Gueye bi na wala dix-neuf Pablo dëkk Kër Mbay Fall vacances lañ ñëwoon Diourbel ca maamam daa réer depuis mercredi 13 octobre alaaji mhm. képp koo xam ne kon gis na Pablo mi na woo yaayam Fatou Gueye infirmier la ca sami municipal na ko woo ci 77 935 09 93 wala mu woo Ousin Ndaw Pikine ci 77 397 91 24 kii moom dafa réer le ab sac bu def kon ay clé USB mi ngi jëlee woon taxi ba taxi bi la en euh, marque Logan diggante Almadi ak ak lan Pont Foire hmm. Mamadou Diop képp ko xamné kon gis na sac bi def lay USB na woté ci 77 374 81 92 code bi Ndiaye dafa rerlé mom ben pochette bu ñuul wu def nak euh, carte nationale d'identité carnet crédit Mutuel euh, ak lila carte lan visite Euh, maar dada photo d'identité képp koo xam ne kon gis na ko daal na woote ci 77 140 05 27 bindaat na ko fii moom Codé Ndiaye wooteel ci 77 140 05 27. kii moom euh, nee dafa réer les ordinateurs la nag alaaji kon euh, Sony bu weex mi ngi ko bàyyi ci benn taxi ci ginnaaw sami municipal. logement médecin fa la ko fa la réer. képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 70 756. 26 26 li nga xam ne kon noonee nag la satra gi taalee kon alaaji mayee woon nag maanaam meew yooyu loolu la amee yéene insha allahu rabbi mayee ko nag ay ginaar kon ci tam xarit ji te du ko jaarale ci loxo kenn ku dul ministre de la donnée uh-huh. Serigne Ahmed Aidara Karara borom teranga ji hmm. surtout ku tedd ki borom maamu barrière or ba tamit dunu voilà kii moom dafa for kon benn xale bu jigéen ci turu kon Roqee Fall Roqee Fall gis nga nii laay def rek dem ci marché marché alaaji di fa hmm. maanaam di fa dee rek waaw ku dee ca marché yaa tàgge sa bopp dëkk beeg ni mu mel moos ngay xam le ne yow mii danañu jaarale ay ginaar sa loxo nga koy maye ah. bu ko defee nag nit ñi daal lay envoyé rit ah. dama daloon ca meew ma dunu ay terangaatu ne yëpp bët la nag ñoo xam ne nañ leen koy xixi ñoo xam ne duñ leen ko yaakaar kii moom noppar kon ab gone gu njagamaar la roqee Fall wuyoo di doomu Modou Fall képp koo xam ne gis na ko na woote ci 77 659 89 59 Euh, Bougane gi Dany xaw ma fan la nekk mais maa ngi koy woo tey nag bu mu nee jàkkoon fii ci rajo bi dama ko soxla na fi dikk nag bu ko defee daal alaaji mm. mu daal di commencé waajal nag tam xarit bi bu dee dafay rey nag mu teel ñu ko wax bu dee tamit euh, dafay maanaam nag euh, joxe ay ginaar simeer mu teel ñu ko wax bu dee nag maanaam ndawal ci boppam daa tegul ci loxoom bi mu teel ñu ko wax mun ñoo yeewi mm. waaw Bamba Calcio nee na kon dafa fàtte ay fàtte taxi la ko bàyyi démb ay kon min wi mi ngi jëlee woon nag taxi bi kon Grand Théâtre euh, doon dem fan Ouest Foire képp koo xam ne gis na Ndiaye yow yaa indi lii Serigne Nguer nee na dafa réeré leen de conduire carte d'identité ak lan benn bat ak euh, ay photo ah, ak ay photocopie képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 77 261 94 19 Alaaji Moussa Ba maa ngi koy nuyu Mamadou Yacine Diallo moom nee na dafa réeré nag benn sac à bu ñuul la ci benn taxi ay booru 21 heures taxi Toyota ah hmm. ci biir sac bi nag ñu ngi amoon benn portable lu bees ak ay yére ak ñaari lan euh, paquetu lan lim ak euh, paquetu lan euh, lii lan la moustiquaire la wala moustico ah moustico lii ñaari lan poignée porte lan porte auto ak benn agenda ak ay dàll koo gis na nga woote ci 77 452 27 59 Fass Médina rue 22 prolongé Grand Yoff lii moom passeport la bu Sénégal la de du diplomatique déedéet ordinaire la ak su bu dee yaa may dégg 66 la juddoo ma nga juddoo nag maanaam kon sa géewul ab su mbàkke kon sa passeport bi nag maanaam bu bees la comme ñu ngi fii ci Zik FM ñëwal nga laajte Ndiaye wala nga laajte kon Bougane Gueye Dany am na nu muy demee dina la jox passeport ba nuppi daal di lay delloo sa passe mhm. voilà kii moom ñu ngi tudd kon Sidi Diop bokkul ak Sidi Ndiaye de Sidi Diop mhm. bokkul ak frère ministre Moustapha Diop Sidi Diop bi wàllu fekk dewey bokkul ak moom la cinquante cinq la la juddoo ah kon yaa ngi dégg bàyyi baa Fatmata Tall bu dee mi ngi may dégg nag na ñëw kon jël si nag maanaam lii di carte d'identité ak carte électeur carnet de traitement moom la kii nan la tudd moom mu ne Moussa Diop bokkul ak Google tàppe de déedéet kii adresse am domicile Ndiobène la CM Sali Keñe waaw koy waay raw bu dee nag yaa ngi may dégg kon ñëwal nga ñëw ko jël si kon sa carnet de chantier ak ñoom seen ñu ngi fii ci ci Ndiaye boo ñëwee te mën comme que tam xarit baa ngi jege si nga daal di laajte gaaw le plus rapidement possible kii di alaaji Bougane Gueye Dany am na nu muy demee mu jox la ndawal wa illaa mu jox la ay ginaar hmm. Semaine Diop nee na ma kii technicien la ah technicien la moom nday ah ah ci turu Seydina dafa réer la benn kalpe bu ñuul nag bu defoon kon ay pièces d'identité ak lan carte euh, vote permis de conduire ak benn photo Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu képp koo xam ne gis na ko nag mooy ànd ak ah mooy kii ànd ak nday doom cuuf yaa jëf waay ah dégg nga kon boog Seydina Ousmane Seck alaajo kon bagage am yooyu ñoo réer mm. Mamadou Fafana Zik FM Guédiawaye tey la anniversaire am joyeux anniversaire voilà ak kan sumaire ñu continuer communiquer Euh, ba léegi ne la kii nee na ma nuyul ma euh, weekend <laughs> na weekend jabu nee weekend bi romb na sa dëkk bi ah, mu doon dem na maanaam fi nga xam ne kon moom mooy. Euh, ah ah. mënoon na maa ziare yow mën naa faa laajte. Ah, ah, mënoon na laa laajte de. oui oui loolooy dëgg nag loolooy dëgg voilà voilà voilà. voilà la anniversaire am quatre ans di doomu Khady Ndiaye mi nga xam ne kon du maa bëgg. <laughs> sama jigéen la <laughs> doom yi ngay sëy ca fajar wallaay ndeysaan doomu mais jabu jóob bon léegi nag hmm. Hmm. Cheikh Fall nee na mi ngi lay nuyu de Fall maa ngi koy bu baax a baax Fall waaw Cheikh Fall de mi ngi lay nuyu moom ndeysaan sama rakk la Cheikh Fall hmm. ndax ko ñoom gànna Kamara la ak ñoom Omar Siñoor yaaye maa ngi koy nuyu maire Fat Diagne euh, dafa am suñu benn xarit boo xam ne balaa maa teg premier test bi kenn du moom Pape la tudd. Mhm. tasaa lay dawal. Mhm. moo daan yóbbu CFC ak école de Balla Gaye. bu mhm. ñu daan demee effort. Ah, ay staff ak yooyu. dafa am problème ci wàllum dawalam ji alaaj ñu jël ko yóbbu ko tribunal. sévère alaaj wuy ma waaw. ñàkk xam li mu waral bari na xam naa mi ngi ci tataam ñu ma déglu. waaye bi laay tey nga dee waxoon naa li laa jàpp de xamoon nga ni moos di ñëw tës. alaaj ah. juge bi ne ko ah. muy tararari di wax ci biir tribunal bi jékki-jékki rek juge ne ko eh <laughs> li ngay wax xamoo ci dara laa la wax yow mu ne ko eh xoolal yow mi yaa xamul li ngay wax yow eh. <laughs> xanaa xamul ki mu ne waxal de non su <coughs> meer <coughs> <laughs> Fapal xoolal ak joxoon ñaa ah. alaaj xoolal yow mii yaa xamul li nga <laughs> waaw dee de dee la tudd dee moom dee moom dee eh, ko sutura zizo ba mu àttee juróom benn weer kee la déclaré ferme ah, ah. nga sant yàlla moom jotee ci loolu xanaa xamul juge la doon waxal <laughs> waay waay ma ne kooku de ab buggaan ngay dandi bu sotti la da nga xam alaaji gis nga fit bu bëri dof la du njàmbarte de waaw xanaa na ñoo xam ne dañu naan non non simeex hmm. ko ci kaw bopp bi xoola wuy boo yëkkatee sa loxo bii ba ne man dama am fit man yëkkatil sa loxo bii ne waaye nag waaw waaw mais mais fit gu bëri ndof la <laughs> non barke xoolal <laughs> nu mujjee kay nettali naa la ko gis ne ko hee ngay tararari comme ça li ngay wax xamoo ci dara laa la mu ne ko ay eh, xoolal yow moom yaa xamul dara ci li ngay wax yow. <laughs> alwali dee na ma kooku fàll la fan ba moo tax. waaye <laughs> papa mi moom lu ko dal papa xoolal fi ne nii ma ngay dawal de ma ngay naka njaay ma instant xam nga xool ko ba mu guddi bàyyi ko ba mu guddi xam nga chaque jour ñooy toog ca montagne yu bii boobu di waxtaan billaahi wallaahi taalaa laa lay wax ñun fit bu bëri dof la billaahi fit bu bëri moos ndof la ah, tës bi tey alaaj yi hmm? ñaari tës yëpp benn bi mënoon nañ koo denc parce que ñaar yëpp ay tësu la di le hmm? waaw waaw waaw eh, ndaw si waaw ci benn l'hôpital mm-hmm. ci géejawaay mm-hmm. la dem mm-hmm. am fa dooma ah, yaakaar na jóge fa moom doom ji ñu ne ko comme que doom ji matul ñu yóbbu ko ci benn l'hôpital ci Pikine waaw ba mu fa demee waaw ñu hospitalisé leen mm. yàlla dogal mu am fa doom hmm. mais alaaj ba mu fa amee doom ñu koy toppatoog ñoomin seen ak yooyu waaw ba doom ji mujj dee ba doom ja delloo nag hmm. fa la problème ba tàmbalee parce que hmm. instant bi néewu doomam ma nga sa hôpital waaw nee nañ ko boo ñu joxulee temps instant bii nii instant bii boo ñu joxulee temps sa bébé bi doo ci jot ah. boobu ba léegi nag atom belève bébé baa nga ca hôpital ba néew ba mënu cee jot te mi ngi nii mënu koo denc ah loo jotul kay doo ko denc kon ana yaay ji waaw dama amoon doom temps yi léegi xale bi ndekete motul ba ma amee doom ba pare ci hôpital bi léegi ñu génn ma ma yób ñu ma yóbbu ko kër ga sama benn dëkkandoo ñëw ca kër ga di ma seet si léegi bu mu ñëwee di ma seet si mu gis xale bi sonnoon léegi mu ne man nañ ko yóbbu hôpital xanaa bindaluñ la kenn man ko aha kay kayit bi de mi ngi nii kayit bi ñu ma bindaloon mi ngi nii léegi moom man parce que man jànguma xaw ma ci dara léegi moom moo liir euh, kayit bi ne ma ne ma kaay lii dañ la bindaloon kayit pour nga dem hôpital léegi ñëw ñu yóbbu xale bi hôpital bañ demee roi bu ne ñoo ñu bindal ñu kayit ñu yóbbu ko kaw caaro yi bañ demee kaw caaro yi xale bi euh, nekk fa nekk fa nekk ba décédé léegi ba mu décédé ñu ni ñu ni balaa ñu joxe kii koor bi foo ñu joxe cent soixante quinze mille francs ñu doog a jot kooru xale bi ñaata weer laa amoon le 16 bee passé la judd génne kon xama woon ne xale bi matul dé ma xawma ci dara ndax mosuma am doom bu mel noonu ñu jox la rek yow nga après nga génne ak ah, dem kër gi waaw ñoom médecin xanaa waxuñu la dara déedéet waxuñu ma dara da dem rek am doom rek génn waaw ba ma am doom ba pare fekk xam nga sama borom kër loxoom jotul gannaaw moom aussi léegi da leen a ne man de man yoruma ngeen ma ci mën a dimbali ngeen boolee maak euh, lu ma yóbbu foofu ñoon ko a ah, wax dëgg si yàlla ñun bind nañu kayit mi nga ndeketee moom la joxoon kayit bi te man xaw ma ci dara. looloo léegi yow eh, bi nga delluwaatee waa Bodouma dañ la ñëw rek dugal la fayoo dara. déet ba ma ñëwee damaa ñëw rek dugg noonu rek fayu ma dara ñu bindal ma kayit bi. ko nga bàyyi fa gune yi waaw ma yóbbu ko Camp Thiaroye. Camp Thiaroye après bi nga demee ñoom luñ la laaj. ba ma demee dañ ma expliqué ne moo demee léegi ma ne wax dëgg si yàlla sama loxo jotul sama ginnaaw te sama borom kër amul néew de doole la ku ma jàppale rek laa bëgg léegi ñu dugal xale nag di ko faj ba après la ñu doog wax li ñuy fay Mhm. léegi bañ wax loolu man la wax dëgg si yàlla de li ñuy wax man aw ma ko ma xëy di daw di wuti sama ñaata lañ la waxoon ne moom nga war a fay ñaata dañ ma waxoon cause caution bi cinquante mille ngay dugal boobu xale baa ngi dund waaw boobu xale baa ngi dund léegi nag ba mu décédé ñu ne foo ma joxee cent soixante quinze mille francs te li ñuy wax man aw ma ko mhm. looloo taxoon ma ñëw cent soixante seize mille sept cent quatre vingt cinq waaw mooy facture mooy bu mu deewee pour ñu jox la koor bi nga dem denc ko waaw looloo taxoon ma ñëw si na pour wut ndimbal ñu mën maa dimbale si yàlla tax bañ jot kooru xale bi pour rob ko ndax di depuis booba tey mënumaa lekk ba suur mënumaa naan ba ba mandi xale yi sonn nañ guddi sonn nañ bëccëg su ne ba ñu depuis soo ba tey toog naa si añ euh, ndékkiwu ñu reeduñu depuis boobu ba tey damaa sonn ba maa ngi feebar mais teewut ni maa ngi jóg di wuti pour xale bi mën a génn ba ñu denc ko depuis boobu tey damaa feebar sama ordonnance ba tey jënd gu mën ko lu ñuy téye niiw ah, ma ba xam xaw ma ba xam lii daal xaalis bi daal lañ ne dugalee dara moom li ci des mën nañoo ubbi si seen biir ba ci koor bi. léegi pour koor ba génne il faut cent waaw loolu la ñu wax ne. am sa borom kër. moom mi ngi fii mag la te loxoom jotul ginnaawam mënatul dem fenn mënatul dem fenn dox na lijjanti na ba sonn amul lu may jox su ma xëy léeg su ma joxee lu ma farwaatu ma ñëw jox xale yi ñu ñu mën a leen. Hmm. waaw. waaw ñooñu xanaa xam ñu ne néew di doole na. ah eh, non expliqué naa leen de waaye ñoom waxuñu ma dara dañ ma ne temps fa temps rek foog nga joxe moom. ñoom ñoom lan lañ wax boo demee. ah ñoom boo demee expliqué amoo yoroo. waaw dañ ma ne ñoom moomuñu kii bi moomuñu garab yi garab euh, pour kii bi la pour kii bi la pour kii bu ñu dugalee xaalis pour garab yi la xaalis waaw xaalis bi foo ñu dugal pour garab yi la. 166 1785 ñu ne pour garab yi. waaw pour kii bi analyse beeg kii bi euh, rajo beeg yooyu. waaw bi moom gaañu na ba pare. waaw gaañu na ba pare mais xaw ma lu tax daal ñu. garab pour la kon. boobu pour. ah bi muy dund yooyu lu a de faatu léegi moom lañ lay wax nga nga fay ko. waaw ñu fay loolu pour ñu mën a jot koor bi xale bi ñu ñu ñu dem robbi ko yóbbu. Eh, depuis le 3 depuis le 6 la nelawoon ba tey xale bi génn ko ma ngi ca margo ba ko foofu. maa ngi ñaan nag képp koo xam ne mën na maa dimbale si yàlla tax ba xale bi génn ma ma rob ko mën a fu ma toog mën a am am jàmm ak salaam rek loolu laa bëgg rek képp koo xam ne mën na maa dimbale si yàlla tax ne ñu dimbale ma ba xale bi génn. mu nekk nekk sa billaahi su ma tëddee du ma nelaw depuis boobu ba tey damay toog lekkuma naanu ma depuis soobee fii la ñu yendu ndekki waxatuma la añ sa jaaro jaaro waaw ma bëgg ñu jàppale ma di woo autorité Macky Sall ñëpp koo xam ne rek yàlla mooy tax ngay defee maa ngi lay woo ngeen ngeen dimbale ma ci yàlla waaw You're the damn girl man away na damaa xaw a mystique bi daw na lu bëree bëri parce que ab kilifa laa doon waxal. Mhm. ci lii nga xam ni. Mhm. moom moom moo dal ndaw si. waaw muy Adama Ba. Mhm. Adama Ba moo fi nekkoon maire. ah Adama Ba. ancien maire voilà Adama Ba mooy président du conseil d'orientation des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose. waaw waaw waaw waaw waaw. moom la ko président Macky Sall def. macha allah. nee na ndaw si. Mhm. bu dee mi ngi may déglu nii moom ndaw si bu dee yeewu na. Mhm. nañu fa daje wa illaa ndaw si wax daal nan la bëgg wa illaa dañ ko koy jooni jooni mhm. mu fayal ko tey tey tay tey tey. mu jot mu mën a jot ci bébéem bi tay tey tey. Ba. Adama Ba nag nee na mi ngi ko def ci turu président Macky Sall moom mi nga xam ne moo ko dénk. loolu lañ leen di doyee de. loolu lañ leen di doyee Adama Ba nag dafa baax. si meer non ba mm. tey xam nga yenn saa ñu confier la lëf. <laughs> te doo ci def it li ñuy xaar ci yow. xooxoo oh, oh, dama ne. dama ne. Mm. dama ne. Mm. wax ji da koo wax. da ne. lii lañ leen di doyee. waaw. alaaji. waaw yaakaar. waaw gis nga nit ñi. koo gis. koo gis. Mm-hmm. nit ñëw ca yow. la ko jëlee ca fa ne ba ca yow. yaakaar yaakaar la waaye lenn waxu ko ne bu demee rek mën sori na ko jox wallaahi looloo ñu sonal fii ci suuf yor ñu budget wu léeg-léeg nit ñëw fi ne la dama am malaat bu ñu war a fajee ji France total bi yëpp vingt quatre millions la waaw teew mu leer lii moom am na yoru ko wallaahi du noonu waaw léegi yaakaar la nit ñi am ba jëlee fi ñi fi nekkoon bu nekk moo ko hmm. bu dee joxe joxe rek wala tabe Hmm. Ablaye mën nga koo waxal lu ne ba mu def Ablaye Wade dafa nay hmm. dëgg loolu dëgg ah waaw kon nag kookee bu ko fi nit ñi jëlee ñoom indi fi président ki Sall ak waa këram hmm. kon dañoo jàpp ne kon teraanga ji fii lañ ko gën a yaakaare na ñi fi ne ñu faxas ñi fi nekkoon dëgg dëgg loolu dëgg dëgg suñu jàppee ne courant bi ci jamonoy Ablaye Wade day coupé te seer na te seer na buñ nekkoon nañ fi jëlee Ablaye indi Macky dañoo am ci yaakaar Macky ci courant bi seer hmm. ak découpé suñu jàppee ne jamonoy Ablaye Wade agression yi dafa bari hmm. ñu ne njort nañu ne suñu yaakaar ci Macky la ëpp ak ñu mu àndal ne bu ñëwee agression bi dana wàññeeku hmm. maanaam secteur boo jël Ablaye lu mu ca góorgóorlu rek ñun xalaatoon nañ ne Macky bu dikkee dana def lu raw lii moo tax ñu jël parce que on sent pas yéen équipe kii gañ nag loolu def boo jàppee ne merci beaucoup Ablaye Wade jikkoy sénégalais la jàppoon di yàq njort nañ ne kon Macky nii bu dikkee dana gën a defar jikko yi mhm. waaw dëgg loolu dëgg waaw waaw waaw kon nag moom aadama Faye mii nga xam ne mooy président Adama Ba mhm. mi nga xam ne moom mooy président conseil d'orientation des pôles urbains de Diamniadio et de Lac Rose mhm. lii mu def lañ leen di doyee mm-hmm. mm-hmm. doyuñ leen leneen loolu donc waxuñ leen ne leen seen salaire bi boo leen fayee ko wër leen kër gu ne ngeen jëndal leen saako ceeb Macky ci boppam li muy yor ay ay xawma caisse noire rek loolu yëpp Macky mënu ko dëgg loolu dëgg seen lettre yaa nga ne servir la Sénégal ak présidence de la république ndimbal ya ndimbal la ñuy sàkku ci ñoom ak ñañ war a faj yëpp ah, mënuñu ko waaye li ñu leen di doyee nag mi ngi nii alaaji tollu diggante social nga jàppale. tabaski ñëw nga jàppale. tamxarit ñëw. nga jàppale yow waxuñ ne mukk ne la tund wa nga dëkk. ca géejawaay wala ca parcelle wala ca ndar. Hmm. kër yëpp nga war a dugg kër gu ne nga takk fa nag. mënta nekk loolu moom mënta ne. ah. mënta nekk ah, kay. kon ndaw si bu dee mi ñuy dégg. non solution solution mënut a ñàkk. solution ñëw na. xanaa kay dafa aju ci ni. Hmm. bu jëkkante jotee. waaw ku jiitu dañ naan jàmbaar nga. Uh-huh. ndaw si mënut a jooytu doomam ju ñu ju ñu ju ñu téyu hôpital. Uh-huh. ci cent soixante quinze mille francs. dëgg dëgg loolu loolu xel mënu nangu faaw solution am. waaye nag comme solution dina am nag ki jëkkante yi nag ki jëkk ni maa ngi nii am na ndam. laa ilaaha illallaah ah ñun de xamal naa la leen hmm. bu dee ndaw si day ñun sagal nañ ko. Hmm. waaye ñu ni aadama ba mii. sagal nañu. ndax lii nag day tax nit ñi benn gën a am ci yow yaakaar gën a saware di déglu sa rajo ak di dikk si sa rajo yéen na ko gën a man mii na laaw la ti kon aadama ba muy alaaj màkka nga jóge say ñeen fukki guddi matagul ñaanal ko yàlla mu gën koo man ñaanal naa ko yal na ko gën a man mii na laaw la ti na ko gën a man mii na laaw la miin ba miin bopp la jéeri anamu moom dafa ñëw alaaj Ahmed koo la ci gars yi Amar ah, Amar a ngi nii. moom ASC bi waaw. <laughs> bul dugg dugg foofu. bul dugg foofu walaay toog nañ toog nañ. toog nañ toog nañ mais alaaj ren kay benn équipe a def jéego bu rëy. muy xale cité. déedéet benn parc. xale cité moom xale ah, cité kat waaw benn parc waaw xale cité kat fii mu yegg nii moom sawaay moom fii moom miin na ko moom xale cité ñaata yoon la jël ko. non parc ay dëkkandoo lañ ay dëkkandoo yu baax lañ. benn parc rek xamal naa la benn affaire. Hmm. ah. sabay dem nañu Jaloor sabay waaye ñoo fa nekk de ñoom Samba Thiam ñoom Vincent. alaaj juróom-ñeenti at a ngi nii de bu bu ma juumalee génn ñu premier tour. bu yoon dee génn nañ. macha allah dem nañ quart de finale de. progrès alaaji. ah loolooy progrès. foofu lañ xaar yow tam foofu lañ lay xaar. Amar nag ki tax alaaji Mansour. waaw. kon waaw. jël taxi non non ñoo ngi fii ba tey rue 23 Médina. man waaw na jël dix mille francs sax ma ma àll taxi tey dix mille man dinaa alaaj waaw maa la maa la mën a ma maa la mën a wax ci ci ci ci kooku noonu dugg léegi léegi Adama Ba c'est quelqu'un de très modeste très effacé waaw waaw yaa une fois on s'est on s'est daje nañu côté côté Petersen muy dox ni ci tali yi comme un citoyen ordinaire ah ma ñëw interpellé ko ñu taxaw waxtaan lu yàgg pendant quinze minutes <laughs> ce jour là damaa gont te ça montre que c'est quelqu'un de très ordinaire mais kii euh, mais Amar waaw Euh, dama bëgg a woo après Seydi Aboubacar Mbengue mi nga xam ne moom mooy directeur u mhm. couverture maladie universelle waaw ñu laaj ko ba xam dañ ne de zéro a cinq ans wala dafa am daal loo xam ne xëy ne explication yi dafa leerul daal mhm. loolu xaw nañu jaaxal ay manquement la ah man yooyu ay manquement la yoo xamante ni certainement dinañ ko jël en considération léegi nag deuxième partie bi waaw man dama ko bëgg a jël bu dee mi ngi may déglu tamit wala fal, mwenye khami mwoy sa deyèl komunikasyon, ale fal. Sounè mwenye mwenye devloutan, kom mwenye jem ko wak nekodal, gina w trafik dek, publikitek nyo men sèn, be genen ko djel moun direktor, dezyen parti. Patke li, mwenye mwenye mwenye titor ou la bok. Bok mwenye gisen proje fal, mwenye rey alidek. Tsen dam la, tsen dam la. Mwenye wak mwenye bakam, exact li, averbi. dafa am ay manquement wala universel de zéro à cinq ans président laal na la doo fay ci hôpital ñoom léegi dañ koy wax ci débat ci débat nag sur le terrain ba xam ñu ngi koy appliqué waa wala déet kuy dund te fayoo nag boo dee fay man laa gën a wàcc xanaa dëgg fa yàlla waaw ah? kuy dund te fayoo waaw ah boo dee nag xanaa moom dootoo fay waaw en tout cas loolu loolu moom bëri naam ci hôpital boobu noonu il faut demander à Lamine Gueye am na am na benn euh, moment boo xamante ne loolu mosoon na fa am te la leen moom moo décanté la situation. Hmm, mais yàlla baax na léegi ana a ne. waaw alaaji ah, avant ma commencé nag bul fàttee docteur Marie Sarr ah, envoyé naa la message bi. Euh, alaaji hmm. ndaw si daal hmm. bu dee mi ngi ñuy déglu na na ñëw fii daje fi ak euh, monsieur le président Adama Ba mm-hmm. bu ko defee mu <clears throat> fayal ko comme ça mu mun a jot maanaam ci euh, néewam du noonu mm-hmm. waaw directeur u euh, semi nag ñu ngi koy jéem a woo <clears throat> malheureusement jotuñu ko dégg nga mm-hmm. voilà kon boog alaaji loolu moom moom mooy tas bu njëkk bi parce que nit ñi li ñuy laajte ci couverture maladie universelle dafa bari moom laay wax waa ji nekk semi nee naa ko sawaay da ngeen a war a wax nit ñi loo xam ne lu dëju la parce que yéen seen responsable yi bu ñu toogee ci débat yi ci télé ak ci rajo yi alaaj lenn la ñuy wax dañ naan président indi na feebar faju gone yi zéro booy doogu juddu ba cinq ans xale bu feebar boo demee ci l'hôpital yi insha allahu rabbi dañu lay faj te doo fay kon yéen bu dee nag daf ci am ay ay nu mu euh, daf ci am ay ay ay ay kii ay ay mbir yoo xam ne dafa leerul. xam nga li ma la yéen da ngeen a war a expliquer ngeen ne de zéro à cinq la. Mm. mais à condition ko bu dee danga am doom. muy césarienne wa illaa bu dee nangam bu dee nangam bu dee nangam bu dee nangam. Mm-hmm. xam nga mais ngeen toog ci télé rek naan zéro ba kaw ma ñaata at. Euh, cinq ans. foo ñuy leeral li nekk ci texte yi yëpp. merci beaucoup ñu comprendre. voilà merci beaucoup. ah d' accord. waaw daf lay waaw di toog di wax rek te ah, bis bu nekk rek nit indi fi kaa ci bi kaa bu mel nii nii nii. Hmm. sama doom ji ba mu demee hôpital rek dañ ko ne léegi léegi ko ne léegi léegi te ñun fu ñu leen déggee ñuy débat dañ naan ku ku ku xale bu am zéro ba cinq ans. feebar faju ah, waaw te doo fay parti di patata. docteur DG lan la programme national tuberculose nee na dafa réerle carte bancaire ak euh, carte d'identité carte électeur permis de conduire mm-hmm. képp koo xam ne daal gis na ko daal na ko indi kon fii ci Zik FM mu laajte euh, Amar John waaw Mamadou Diallo waaw waaw kii dee nee na ma yéen waa Sen TV Zik FM boo leen duggul àjjana kenn du dugg amin mm. ah, alaaji kon boobu moom solution ba dugg na waaw boobu moom solution bu dugg la. Hmm. ñëwal ci deuxième bi ñu xool ba xam dina amaal beneen solution te njort nañ ko ci. Hmm. Euh, xale yu jigéen ñi alaaji. Hmm. seen papa la ñuy wër. seen papa waaw. seen baay demoon na fi réer juróom benni at ñu gisaat ko mais bii yoon ba mu demee ak léegi fukki at ak benn ngi nii tegatuñ ko bët. papa ji. lu ñu leen wax nag mooy seen baay bi dañ koo yàq. affaire nit ku la ci rek mu nekk lu doy waar ko nawtal waaw ah, kay nawtal ana xale jigéen yi su nekk da ngeen ñëw bu ana seen papa naa réeru réer moom daal daa disparaîtoon disparaître luy loolu sa liggéeyam maam du fa dem ay katu wen di jooy la commencé naa di dem ak di dem ak ñëw ba mois de 93 94 si la dem dem ak lan da doon ñëwaat. waaw moom daal non dafa wéer dafa mel ni ko am feebaru xel daal. waaw. léegi. léegi nag ba mu demee durant ay cinq ans six ans yooyu mu ñëwaat léegi bu mu ñëwee nag xaw na faa yàgg def na ay deux mois daal mu jékki di demaat ñun saa yu demee nag dañ koy wër duñ ko gis dañuy ku ne dugg nañ fa maire bi daal def na lu ne sëriñ bi def na fa daal pour waaye xel bi moo nekkatoo daal ci ay famille. Ah, xel bi moo nekkatoo ci ay famille. waaw maanaam du du du du xel bi ba. waaw du xalaatam mbokk ay. du xalaatam njabootam mu mel ni daal amul njaboot amul dara lépp nag suñu yaay mooy jóge ko daal su ne dem nañ daal pour wër ko. suñ dem daal ne mhm. bu mu ñëwoon sax yàggoon na mu toog toog na commencé di liggéey xam moom la woon daal. moom foofu loolu la doon liggéey. waaw loolu la doon liggéey. jibitëri Gabriel ci diggante loolu liggéey. waaw léegi après ci la ay ci liggéey boobu doxatu léegi dinaa am xel bi demee woon bu mu ñëwaatee ci kër bi danaa dem Cera di jaay ko affaire yaa ngi taal danaa def ko. ok léegi nga ne bi xel bi xel bi demee ba dellusiwaat c'est-à-dire je veux comprendre euh, dafa perdre lucidité maanaam dafa demoon ba taxali ko xasoo mel ni mel ni boo xamante ne nii wéru. waaw waaw dafa mel ni ku tàggat rek sabab parce que loolu ku tàggat rek sabab dañ ko mën a wax koo xam ne yor nga ay famille dem bàyyi say njaboot.

xamante ne dina tudd ne kan la war a nekk kan moo ko war a mën a noppal kan moo mën a am intérêt pour noppal. xamuñu kan la daal xamuñu def nañ lu ne waaye xamuñu amana meer bi daal moom day dem daal si borom kii xam-xam yi dañuy def pour daal pour ñu ñëw waaye dara duñu gis dara. ok kon nekkul bi bi euh, dem bi nii nekkul première fois mu dem. non yàgg na dem yàgg na dem. da doon dem di ñëw quoi. da doon dem di ñëw daal waaye bii yoon moom mariage wala man daal onze oh, ans douze ans yooyu parce que yàgg na. ngeen ko mujjee koy mujjee gis. léegi yéen da koy dégg fenn wala. ñun gëj nañ ko dégg temps yi daal lañ ko dégg côté Mbour ñu naan si côté kiiwu keccax yi sama frère bi demoon na ba foofu wër na ba sonn waaye gisul am na ku mujjee gis mu ko paa bi daal xàmmee naa ko. waaye daf fiy ñëwaat wala dinaa la jox ay coordonnées ba xam ndax moom la war a du moom. waaw yéen daal ki ngeen jot ne peut être moom moo war a nekk seen papa mbuur ngeen koy dégg. waaw mbuur daal lañ koy faral di. léegi yow fàttaliwaat bi nga ne nan la tudd. Gabriel Ciss. moom ma Gabriel. te moom xelam bi sax ci côté Cefes la ko yëngu ci côté géej daal lay souvent fa lañ ñuy wax fa lay nekk. Hmm. rab bi daal foofu daal la koy yóbbu. ok léegi yow tey jii ku gis Gabriel maanaam tey jii boo doon wax Gabriel nii la mel euh, sa papa noo noo noo koy décrire. man daal temps bi ma koy mujj dossier bi jeexoon na sax changé na jeexoon na wax waaw dafa ñuul dafa xees dafa non dafa ñuul nag waaw te xaw na gàttul nag waaw te xam naa moom dina xaw a changé moom ñun daal dañaa bëgg ku ñu si bu dee gis nañ daal mu wax ñu war a sëriñ daal ku ñu mën a ñaanal daal pour bu bi ñëwee ñu dik ko pour mu toog. 12 ans wala 11 ans plus de 11 ans. waaw sa papa noonu noonu la ñu dundee loolu en tant que ay doom. ah métti na moom wax dëgg yàlla métti na waaye lépp dañ kaa teg ci yàlla rek. ñu xam ne donc ko ñu ko hmm. na c'est-à-dire que peut-être boo gisee say moroom ñu ànd ak seen papa affaire noonu la. ah da ngay souffrir moom bu ko dara bu ñëwee sax toog suñu wet ñuy xëy di ko gis sax ñu xam ne kii suñu papa la sax ñu mun a gën a firi daal waaye di xëy doo xam si lu mu nekk duñ gis suñu papa duñ gis boo gisee ñeneen seen papa tamit sa xol tamit du si neex tamit. Mm-hmm. léegi en euh, mise à part ça aussi euh, seen seen yaay moom comment naka lay dundee loolu. ah moom tamit tamit da see souffrir ba da see feebar sax moom feebar bi daal daanaka ko waaye mu ngi doxal góoram ak jomam rek. Mm-hmm. Mm-hmm. mais affaire boo ko xoolee nga xam ne affecté na ko quoi. waaw waaw te depuis boobu ba léegi tamit moom mu ngi toog di xaar quoi. ah mu ngi toog di xaar wax dëgg yàlla mu ngi toog di xaar dèjà ñun ñëpp ay mag lañ. ay xale. ay xale rek fekk maa ngi am ay dix neuf ans dix huit ans te léegi maa ngi sama vingt neuf ans. ok mm. ah, bi nga mu ngeen ko mujjee gis tey nag ay jigéen ngeen peut être que tey jii nii yàlla mën na def ngeen war a dem ba am ay borom kër dafay noonu bëggoon ngeen peut être mu fekkee loolu. waaw man moom am naa borom kër am naa ay doom. Mm-hmm. man moom bëgg naa balaa balaa loolu daal mu fekk sama papa sama wet. yow yow nga bëgg naa bala ma am jëkkër mu fekk sama papa nekk sama wet na man soxla naa fu ma dund torop na ma loolu daal ah, a naa parce que gis na am na ay photo yi nga xam ne gis naa ko mais relation entre affection boobu noonu laa amul sama papa sama yaay laa ko amee mais amul amee ma ko sama papa parce que yàgguma moom aussi tey jii nii boo xool photo nga woon ko décrire peut être benn nit boo xam ne peut être côté bi koy dégg wala feneen boo ko defee boo ko déggee ci lay dégg noo koy noo déggee man daal ba ma koy mujjee gis daal gis naa ne njooloon na xawoon amoon na yaram daal man ba ma koy mujjee gis man moom li ma mujjee xàmmee daal ci moom man loolu laa gisoon xaw ma na après. il est de Gabriel Sy. moom mooy waaw depuis onze douze ans daal kenn gisatu waaw kenn gisatu mais fi nekk nii comme ni ko sa sama bi waxee que ni am ngeen certitude que ni mu ngi dund ba léegi waaw am nañ certitude boobu mu ngi dund ba léegi mais xamuñu nag ci lan la nekk bu nekkoon bu nekkoon suñu wet daal moo ñu gënal daal ñaan ñu ko yàlla mais tey nekk bu génn ak moom mooy moom mooy tane quoi am na peut-être yi nga xam ne kii nii def mais koo xam ne leer na ñuy dund dafa métti dafa métti ñun daal ñu ngi ñaan daal ku ñu mën a jàppale rek mooy nuyu suñu papa ndax moo ñu gën a manqué wuñu dara wax dëgg am nañ lépp ñu ko sant yàlla bu baax a baax mais amul amul papa rek lañu amul moom la ñuy ñaan la ku ñu mën a dimbal mu dimbali te yàlla tax

xam nga nga am waajur woo xam ne dafa làqu mhm. ni man leer na leen ne saay boo demee mhm. ñëw tiim ko daal xam ne góor gi fii lañu ko denc mhm. alaaji kooku da lay leer ne borom bi moo ko fi indi woon waaw walaay moo ko yóbbuwaat <laughs> walaay moo ko yóbbuwaat nga mer mer xiitar xiitar yi mer mer mer ndogal bi dem na waaw ndogal bi dem na te leer na la ne nit nii mu tëddee rek noonu nga fay tëddee te nii lañ la fas yéenee jale ah, amul benn différence kii dafa yor xaalis milliardaire wala borom tur ba tax na insha allahu rabbi bu ñu koy eh, rob kenn du ko tëral suuf si di ñëw ci moom dañu koy taxawal tabax xabru bi mu taxaw déedéet nga am xam-xam xam-xam alaaji moo mën a am ca yàlla yàgg ki nga xam ne hmm. amul dara nga jàppe ko ko ci kaw suuf hmm. yorul dara hmm. bu añee du reer bu réeree du ndékki bu ndékkee du añ laay yéen ay tolloo wallaahi mu la ko sama benn xarit doon nettali alaaj ma jékki-jékki rek tiit mu ay milliards la lay yóbbu mhm. lay la topp du ma sax ñaari junni ma siggi xool waa ji mu ne ma déggoo ma de mhm. moom Pape Moussa ñoo ànd si démb sama kër tànt ba ma nekkoon mhm. ndey xadi ñëng di añ mu ne ma nga jël sa bopp rek fàtte ne kër gu mag gi hmm? wuy ma waaw saabu parfum waaw parfum waaw yu jekk a jekk hmm. xeeñ neex xam ma waaw waaw saabu yu baax ngay sangoo waaye fee eh? day waaw waaye fee saabu ordinaire lay moom lañuy jëndee sa bitig bi ñëw sang la ci ba nga set ay parfum yoo xam nañ njëkk la yëgu mm-hmm. yomb wallaay ndeysaan deux cent ah, waaw wallaay <laughs> saabu ba sax euh, yelay sangaale xëy na man ci raasuwaale buñ noppee. wallaay ndeysaan antimicrobe yeeg yooyu. cee. ah. <laughs> waaw waaw. bu ne dencee ba ñëw teg paan bi ci ëtt bi képp ku demoon armeel dugalal fii sa loxo daaw raxasu leen balaa dara di leen topp. nga <laughs> alaaj di toog ak ay kilifa dañoo baax chaque jour dañ ciy jëlee njàngat. Oh, dama ne xale yi yàlla na yàlla amul morom. xam nga samedi maag yow bi ñu toogee sëñ Abdou Karim. waaw Makaay man <laughs> asalaam. ñu ngi koy nuyu Mbacke Balaye kenn moom alaaj. nee nee na dafa am ku ñëw. dina ko yàlla dooleel. lay ndeysaan ñëw doon kalaame si jabar ji. Mhm. sëñ Fallou la wala sëñ Abdoulaye sëñ Fallou sëñ Fallou ko kalaame rek ndeysaan wax daal maanaam alaaji sikk yi nga xam ne ñoo nekk ci jabar ji. ndax bëgg fa sa jabar ji rek. waaw waaw xam nga léeg-léeg nga dem ak jigéen nag tarkalla nag ba fi nekk nii xam nga alaaji boo leen dundee at nag foofu moom amour bi alaaji daanaka nekkoon. wallaahi ba léegi kay jaamu yàlla rek a fa ne. su <laughs> meer. benn Modou Fall daal nekk ak jabar ji rek bëgg koo bàyyi. bëgg koo bàyyi di wut occasion pour ndool di ko sikkal. wallaay sëñ Abdou Karim nee na mu dem ci sëñ bi daa leex ni sëñ Fallou di ko sikkal rek la mu wax sax sëñ ba. Mhm. ci sikki na ci jabar ji. lam ca laaxaale bari na génn xeetu bëri goo xamante ni ëpp na <laughs> ndax bëgg a bàyyi ndam ca la wallaahi ne ko ku ma xaw a rusloo nga nag yow. <laughs> waaw ndaw si matul ah waaw waaw mais alaaji hmm? <laughs> ku moom nuñ la koy dénkee. ak nuñ koy jubbante dëgg yàlla ah dëgg yàlla. moom koy ku matul kay la ñuy jubbante alaaji. ok mais ku koo xam ni balaa may dee ñu ne diw yorul ci ko yonent dara mooy yonent mi nga xam ne dënnam bi dañu koo xar génne la ca nekk yëpp. boo ki ñu lay dénk la ni pekk. waaw <laughs> lépp mat. amul benn sikk. non kon nuñ la koy dénkee. aajatu ko. ah ko. <laughs> yii sëñ bi lu mu wax lu mu wax téere la. alhamdulilah mu ni nee na àdduna amul lu ma mënta muñ. ndax muñ ndax daa neex te noppale. wallaay lépp loo xemmee ba mu yàq la muñ boo ko muñee mooy dàq. dëgg la. amul lenn loo xam ne rek. war na maa jaral man sëñ Abdou du may kër kër yi subaa ngoon bu guddeeg bëccëg ngir dale ca rek ndax te ko sama loxo bi téye ko. muy benn yoon mos a tukki. allahu akbar. muñ a tax. ilaaha illallah. avion yi neex yi. oto yi neex yi lépp benn yoon la mos a tukki kon daray àdduna jaaxalu ko du mooyu la léppi àdduna waaw du mooyu la léppi àdduna la ilaha illallah waaw ah laaj yàlla na yàlla dolli sutura yi yàlla noonu yàlla jàppale ah Abdou Karim day moom waxtaan woon fa jëlee moom alaaji il ñu koy yaatal rek bis bu nekk rek ñu yam ci tuut wàllum tool yaag yëpp daal dégg nga kay jili joxaane yi ñu ngi leen di nuyu tamit lay ndeysaan lay na yàlla dolli jàmm ci biir réew mi xale yi yal na leen yàlla suturaal ñu gaaw gis seen waajur góor dix heures la ci gone waaw sa bàyyi di la fob waaw di la tongtongee waaw ak loo ne ci buum ak loo njaboot njaboot waaw doo mës nekk mag ci kanamu papa ak yaay waaw gone rek ngay ne buñ la déggee ngay wax ci rajo bi sax alaaji léeg-léeg dañuy téye seen gémmiñ waaw dañ naan moom kañ la fi màgg ndeysaan ba toll nii wallaahi gone ngay doon <laughs> gone rek ngay doon ah, kon yàlla nanu yàlla dolli sutura yàlla nanu yàlla jàppale yàlla nanu yàlla aar yàlla nanu yàlla suturaal yàlla nanu yàlla jéggal yàlla nanu yàlla làq alaaji fu yàq yeggul bi jaay sallallahu alayhi wa sallam defar ko bépp julit defar ko bépp sénégalais min kilifa diine yàlla na yàlla dëgëral seen taxawaay min yaa rabbal aalamiin suñu kilifa aaday ak suñu kilifa politique min dépense bi yàlla nañu yomb min suñu digganteeg soxna yàlla na gën a ratax min yaa rabbal aalamiin jigéen ñi tam seen digganteeg seen i borom kër yàlla a ratax sëy yàlla a neex jaayal teel wuju sallallahu alayhi wa sallam na yàlla dolli jàmm ci biir réew mi alaaji jàmm rek nag moo waral lii heure bi bu fekkoon ko danaa tal leneen lu toog fii moo te fii ay weer nekk samay ginnaaw te buñ ma fi wàccee quatrième laa jëm te bu boobaa yi dañ may jël rob ma dunu yàlla yàlla dolli jàmm ci biir réew mi ni leen yàlla suturaal ni leen yàlla jéggal yàlla na yàlla aar alaaji simeer Diop mi nga xam ne kon daal li saxaaroon màkk ren gi moo nekkoon ci xarale gi waaye takk na fit wi nee na déwén insha allahu rabbi maag sama doom ji ajaratu mantulaay ci bundoo yi duñ ko fi baax dégg eh. moo nekkoon ci xarale gi ana kan laa dendal xanaa sama xaritu maam bi miin màkka miin medinatul munawara hmm. miin mun naa yàgg naa ko wax dëggalaat na ko ren di alaaji Mansour Diop mii borom teen tubaab borom ngexo borom mbuur eh ak kër songo waaw ana kan la dendal xanaa sa tukkutee di ki borom maamu barrière or ba ca Médine Xuraysi Chérif Ahmed Aïdara Karara borom géejawaay eh. <laughs> léegi Adama Faye ne ma le Sénégal ne se limite pas à géejawaay dimbale ñoo géejawaay am na fatt nga ñoo géejawaay Sénégal du géejawaay mooyow eh. ñun day doom <laughs> ku ne fa nga am ne ci ah mooyow non lay hmm. caaxaan yow géejawaay rek ñoo fi dese suuf da villa boo ak géej bala nga koo xam bala ñu du say mbokk seede la sa mbaax walaay ndeysaan dégg voilà kon boo moo nekkoon ci waxukaay gi moom sërif bu mag bi hmm. di leen jox kon dig daal jee suba incha allah